C'est ji souteneur parti Pastef Mouy Hassan Diouf l'activiste républicain qui combat passif ba qui au pouvoir un leen gis manipulation à plus forte raison que yi nga un leen sous des vidéos Hassan Diouf disponible na ngeen jox révélation le cas de Sarr ak cas un en tout cas wait and see lu parce que nous avons ay SMS ak taatu neen barke Seydina Mohamed billaahi billaahi wallaahi wa taalaahi barke Seydina Mohamed kon dëkk bi dafa yëngu ndax yaasin de sa isa nga leen li ci gën a garaaw yaasin ab étranger la billaay wallaay yaasin mu ngi jóge fële ca Guinée bu ñu demee ba campagne bi taxaw dinañ wane SMS yi dinañ wax fi waa ji doon jaar bay gisanteeg Yacine dégg naa démb ba léegi day mer rek nag bi mu déggee Yacine ba léegi day mer. billaahi wallaahi lu leer laa lay wax Yacine Yacine de benn étranger la bu mimi daan coppet rek comme moom nee na mooy Moussa coppet nee na coppet aji. Nan violé wu ma ak violé wu ma ñew né ana dew ma woon ne ko xaw ko nga mu def conférence de presse né demone na xam na ko lañ koy jiñ du mom kon Sénégal atelen ñu ki fi waxon 94 milliards mu dëdd ci mbalit mi mu ñëwaat barki démb ne leen 1000 milliards ki fi waxon 6000 milliards sama gars yi Sénégal yeewu leen waay yeewu leen ñun dañoo am dañoo am dañoo am plan de travail dañu am lu ñu war a présenter Sénégalais lii nag dañ ko ciy dugal rek mais ñun dàggasanteeg yooyu moom mënuñu ko buñ demee ba mu des dàggasante dañuy cibb ci xorom si rek na ko ci pëyi danga may wax man États-Unis laa nekkoon amul benn banque ci àdduna bi buy jël personnel personnel daf ne benn nit la wax benn nit bu yor mille milliards ci kontam amul benn banque aux États-Unis Angleterre Allemagne banque buy jël personnel xaalis lu tollook mille milliards ci benn tur di ko denc loolu rek ay kàcc la te waxkatu dëgg yëpp danañ ko wax moo tax sénégalais yi nañ yeewu waa ji day toog rek bopp bi di tëgg tama lu mu tëgg tama rek mu toog ci nit ñi tulli ko c'est pas vrai. waa président Assane euh, mu euh, mais xam yàlla dafa def leen yow journaliste nga xam nga li Bougane def ci senegal waaw dangay ngay comparer li Bougane def ci senegal ak li Ousmane def ci senegal rek après ñu xool ñu xool li Barthélemy def Ndakaaru ak li Ousmane def senegal Nous avons les Anta Babacar di def Sénégal ak li Ousmane di def Sénégal ñun dañuy liggéey pour Sénégal ñun. réaction ak révélation yu fracassante yo xamanteni ki di Diouf indi na ko le cas de Adji Sarr ku nekk xamna ni kaawu Adji Sarr lu Sénégal 14 personnes ñoo ci ñëk dé suite bañ fa jegee ci procès ba gis nañu lu xew ci Ziguinchor quatre personnes ñoo fa deewaat ginnaaw condamnation par contumace ñaata nit ñoo fa waat lépp jëlee ko ci ay tappale ci diggante kan ak kan la nag Assane Diouf wax na ko mais am na beneen cas boo xamante ni soulevé na ko ndaxte Assane Diouf dafa waat ci baatu laa ilaha illallah la waatee. donc li muy wax gëm naa ni doon ay campagne parce que politique jaru donc li wax donc nous, aussi soo défendre da nga war xam ban nit la Cheikh posé question bu muy présenter livre solution nee na li nga def yëpp mais ñun aussi war nañu xam ki incarne projet bi lan comportement parce que nit aussi duñ la né diw kat dangam sangam diw nang da ngay xol genre la donc ci biir loolu nag Assane Diouf amna lu mu cité cité na ben kaawu ben guinéen bu yassine lu xew ak vidéo la question lañuy ñuy vidéo taatu neen kan moko mom lan moy problème politique du Sénégal actuellement ak li nga xamanteni moy affaire de Meurs affaire de mœurs foo ko dégg ci les pays développés muy États-Unis muy France waxuma la sax ñu condamné la ci yow la wala du yow mais dégg nañu taqee nga ci wala laale nga ci xamal ni que pare nga ci politique pare nga ci diriger pare nga ci gérer lépp loo xamante république bi ñoom ñoo ko le cas de Dominique Strauss-Kahn fii la ñu fekk le cas de Dominique Strauss-Kahn fii la ñu fekk États-Unis ngi ne le ba ñu bare ñi ngi nii tey nekkuñu candidat parce que dañu leen cité ci harcèlement sexuel xam nga lan mooy harcèlement sexuel nga romb xale bu jigéen di ko woo wala jox ma sa numéro téléphone mu ne la bàyyi nga waxaat ko ko jox ma sa numéro mu la bàyyi ma jàppal ni ko soo demee États-Unis harcèlement sexuel la wala nga dajeeg nit ci bus xool ko xool bi ko neexul wala nga fixé ko ay bët wala mel ni ku koy gaz loolu harcèlement sexuel la dootoo bokk ci élection waxuma la nag dem ba ay salon de massage bañ la fay jiiñ def nga ak defoog bañ lay jiiñ nii laak juutal lak wala juutal yooyu yëpp ci croix que dañ ko war a éviter au Sénégal ñu raxasaat suñu atmosphère politique xool suñuy njiit ñoom ñooy kan yan genre njiit la ñu war a am ku nekk nag nit ga am nga say problème man mi amna naa samay gasax keneen am na ay gasaxam keneen am nangam mais soo xasee ba aspirer pour diriger yor politique da nga war a xool ndax set nga ndax sell nga su la leeree setoo selloo yu bëri bul ko demander en même temps nag soo demandé nag ba pare yàlla weer la ci diggante bi li ëpp solo maanaam mooy ñu assumer Assane Diouf nag ni mu ko waxee am nañu ay SMS am nañu ay vidéo taatu neen su campagne bi gënee sole dinañ ko génnee kan mooy Yacine étrangère la fu mu dëkk ga Guinée en tout cas dafa mel ni ñoom Sénégal ne ko ci pays coppet saxaar xeeñ mu neex noonu la ko Assane Diouf teqale en tout cas muy ay révélation yu explosive yoo xamante ni Assane Diouf def na ko ci turu kan la ko teg ci Mimi kan mooy Mimi question boobu laay laajte kan mooy Mimi ak Mimi lu mu ak Yacine ak vidéo taatu neen yooyu ban Mimi moo ko moom kan mooy Mimi damay laajte temps yëpp maa ngi Mimi Mimi Mimi Mimi te su tonton Mimi laay dégg bu tata Mimi la doon deg, mais léegi tonton tonton nag ça veut dire góor dootul jigéen kon bokkul tata Mimi muy Aminata Touré kon kan mooy tonton Mimi.

parce que nit ñooñu ñoy def seen ay cortège dem de ji sëñ Mountakha Bassirou bakay keur seigne Touba li fay dugg da foro a ñoy ñooy ji Babacar Mansour ku fay dugg de foro sel ñoy ñooy ji di Cheikh maa yi ñax lu fay dugg da foro sel set wecc mais ay pantalon yo xamante dafa takk sobe ay loxo yu takk sobe franchement parler soxlawuñu ko suñu keur kilifa diine en tout cas moy ay révélation yo xamante ki di Assane Diouf def mais man question bi ma koy laaj Assane Diouf kan tonton Mimi si sa prochaine sortie bëgg naa nga tontu ma wax ma kan mooy tontoom yi en tout cas muy réaction bi nga xamante ni Assane Diouf dem na ko ginnaaw bu nga xamante ni mi ngi nekkoon ci cortège boobu di sàmm sa kaddu après la libération de Bougane Gueye Dany foofu procès bi amoon le 30 octobre.